ngi seetaan Al Maktoum TV assalaamu aleykum wa yi nuy déglu ñu ngi yëkkati kaddu di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi nuy déglu di leen ndokkeel ci weeru màgg wi nga xamni wéru barke la wéru wi nga xamni wér la wo nga xamni wéru weeru la ci sa wàllu borom sa digënté ak sa borom wér la wo nga xamni niko ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe rek euh munifa huwa shahrun awaluhu rahma maa ubbil sa sa caméra waaw baax na baax na waaw yonent bi nee na awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itqun min annaar nee na weeru koor njaalbeelam yërmande la digg weeru koor njëggal la mujjug weeru koor goreel la ci safara kon ñu dégge ci ni kon ndekete fukki fan yu jëkk yi yërmande yàlla la ci yàlla sotti ba mu fees dell fukki fan yi ci digg bi kon njëggal la lu ci way ñaan njëggal sa borom mu jéggal la fukki fan yi nga mujj nag fukki fan yi nga xam ni moo mujj euh, goreel la ci safara si ko defee kon ñu ngi ndokkeel ñëpp di balu àq ñëpp di ñaan yàlla ci mbaaxam yal nañu ci dugg ci jàmm génn ci ak jàmm lu ñu ci jaamu yal nañu ko yàlla nangul yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala moo wax ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون yàlla ni ey yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla na ngeen xam ni faratal nañ ci yéen weeru koor comme ni ñu ko farataalay woon ci ñi nga xam ni ñoo leen fi jiitu woon mu ni kon weeru koor du wut ni ci xeetu yonent bi lañ ko jëkk farataal ndeke farataal nañ ko ci ñi nga xam ni ñoo nu jiitu mu ne bu fekkee ni nangu ngeen loolu yàlla teg ci yéen mu ni kon mën naa am ngeen nekk ñu ragal yàlla mu waxaat ci beneen aaya ni ay yaaman maadudaat nee na ay fon la yoo xam ni dañu koo lim moom weeru koor wi benn mu nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala mu nekk fanweeri fan waaye lu ci mën a am daal faman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar nee na ku mu doon ci yéen nag weeru koor wi tab bi yàlla dogal mu feeba wala mu nekk ci tukki nee na may nañu ko mu dagg foon yoya bu weeru koor wi jàllee mu jàpp la nga xam ni wóoru ko mu fay ko waaye nag itam wa ala alladina yutiquunahu fidyatun fidyatun taamu miskinin ñi nga xam ni nag dañoo màggat ba amuñu dooley koor wala ñu feebar feebar boo xam ni dafa dëkkale ak ñoom nee na ñooñu dañuy lele bis bu nekk rek dañuy génne mudd jox ko koo xam ni ku ñàkk la wala koo xam ni miskin la mu fexe ba añal ko reeral ko loolu mooy remplacer fan ya nga xam ni mënu ko woon woor ndax ak màggetam wala feebar boo xam ni dafa dëkk ak moom mënu ko booleeg woor kooku kon ndeke dafay lele bis bu nekk mu génne mudd joxe ko waaye yàlla mu faman tatawaa xayran fa huwa xayrun lahu nee na képp koo xam ni nag danga coobarewu yow danga feebar ñii la la neexee nga dog ba koor gi jàll nga fay nga jéem a jànkonteeg feebar ba ànd ko koor gi wala nga tukki ñu mayoon la nga dog nga ah maa ngi ci tukki waaye mën naa woor xaaral rek ma jéem a woor yàlla neena kep ko xëy da ngaa wu ci lolu def ko neena yiwu rëy la ci yàlla yi fay motax mu wax ni wa anta sumu khairun lakum bu fekke da ngeen wor dal moy li gën in kuntum ta'lamun bu fekke ni xam ngeen li len ci yàlla wara fay ëllëg mu ramadan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما عاداكم walaallakum tashkuruun yàlla borom bi subhaanahu wa taala di wax ak xeetu yonent bi ba tey ni weeru koor a ngi noonu wa nga xam ni man yàlla ci la wàcce alquran alquran jooju nga xam ni mooy jubbanti doomu aadama ci ak réer andi ko ci njub alquran jooju nga xam ni moo lay wax li yàlla daganal ak li mu xaraamal alquran jooju nga xam ni moo lay wax yoonu mbaax ak yoon wu mbon alquran jooju nga xam ni lay nettali yonent bi sallallahu wa sallam dundam yépp alquran jooju nga xam ni moo lay wax li war a xew ëllëg yowmal qiyaam nee kon képp koo xam ni yéen gis na weer wi nee na um te woor weer wi waaye ku feebar nag wala mu ne ci tukki na lim fan yooya bu koor gi jàllee mu fay ko mu ne yàlla li tax mu def loolu mooy bëgg def ci yéen ak jàppandal waaye yàlla deful dara loo xam ni dafay jafeñal doomu aadama bi su ko defee kon mbokk yi ñu bokk gëm yàlla ñu bokk wéetal yàlla xam ni weeru ngëneel a ngi nii weeru barke ngi nii weeru jige sa borom a ngi nii la wo nga xam ni ah, ku ci yàlla nga dugg ci jàmm di ci jàng alquran di ci def say nawaafil di julli ci yonent bi di jéggulu yàlla di dimbali ñi nga xam ni ay jullit lañu yoo xam ni ñu ñàkk lañu bu ëllëgee bu la yàlla fayeel da nga xay moom jëf ci weeru kor wi danga nga wax ni su ma xamoon ni nii kon ma yokkoon ko ibadallah ittaqullaha taala kon yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla nanu ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla e, shahru ramadan allazi unzila fi al quran weeru wi nga xam ni alquran bu tedd bi ci la ko yàlla wàcce woon alquran bi nga xam ni léppam yiw la alquran bi nga xam ni fa tabarakallahu lépp lu nga xam ni am na ki dundu doomu aadama yàlla bàyyiwu ci dara kon nanu ko jéem di Euh, setantal bu baxa bax ci bir wéru koor wi lu mu gatt gatt fexel ba jang ñaari isit ci bëccëgu wéru koor wi so mané lu ko epitam lu mu gatt gatt fexel ba def junni la ilaha illallah bo mané lu ko epitam so baax na euh, def itam astaghfirullah junni wala ñetti témel ak fukk ak ñett batay tey na def itam julli ci bi lepp lo xamni benn bo ci doon def ci weneen weer wudul weeru koor yàlla daf la koy dubleel fukki yoon ci ko defee kon mbokk yi mu mel ni kon weeru koor a ngi noonu di weeru barke di weeru ngëneel di weeru yokkute kon mu mel ni bi nga umee tey ji te yéene bi yaa ko defoon biig balaa fajara jot nga yéene woon ni fas nga yéene woor woor weeru koor wi yëpp kon benn yéene bi rek doy na ci weer wi yëpp waaye bu la yàlla andilee ngant nag ci diggante bi nga dog benn bis wala ñaari fan nee na bu fekkee da ngay umaat da ngay beesalaat sa yéene loolu kon ñu bàyyi ko xel mu ni shahru ramadaana weeru koor wi daal shahrun yuftahu llahu fihi abwaabal jinaan nee na weer la wa nga xam ni yàlla day ubbi bunti aljana yépp kenn kun nekk ñuy la buntu yaa ngi nii fu la ci neex man nga faa dugge wa yuxlaqu fiihi abwaaba niiraan yàlla dafay tëj mboolem bunti safara nga xam ni kenn du am foo jaar ba dugg safara mu ubbi bunti aljanna mu ni kon ayyuhal ixwatu kayfa yasuumu man yakulu bil xiiba mu ni nit di woore di jëw mbokk julitam ci làmmiñam wan na miima wala wan na miima luxooma yow nga woor di rambaaj ci diggante julit yi di jëw sa mbokk julit di sotti ci seen der yi loo xam ni jaaduwul mu ni yéem naa ki nga xam ni loolu mi koy def ci bëccëgu weeru koor nan ko moytu kama xaala رسول الله صلى الله عليه وسلم يرنت بي نينا بو فكي ني وير وي تيرونا نانين وور كيب خامني امولو غانت ا فومو لرؤيته وافترو لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما نانا بو فكي ني اوم غا خامني امنا juróom-ñeenti fan ñaar fukki fan ak juróom-ñeent weer wi feeñ nee na man nga dagg sa koor waaye bu fekkee nag weer wi dafa feeñul ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent kon matalal sa e, fanweeri fan noonu la meloon itam ba um la meloon bu ko defee kon mbokk yi yàlla dugal nañ ci jàmm ñu ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla nanu yàlla sorel ak seytaane yal na yàlla musal nu ci seytaane ak ay gaayam yépp kon ñu jàpp ni ku koor daal bëccëg dugal nañ ci jàmm ñu ñaan yàlla ci mbaaxam yal na nu yàlla sorel ak seytaane yal na yàlla musal nu ci seytaane ak ay gaayam yépp kon ñu jàpp ni ku koor daal bëccëg bi yépp tere nañ la ci nga lekk ci bëccëg bi wala nga naan ci wala nga ànd sa soxna wala sa borom kër loolu yépp tere nañ la ko nang ko moytandikul lépp ci bëccëgu weeru koor wi su ko defee lag ni ci sant daal moo di nga jàpp ci bëccëg bi yépp del tudd yàlla del julli ci yonent ci bi del e, jéggulu yàlla lépp loo man ci lu baax nga def ko bu guddi gi jotee ba nga ndogu ba noppi loo man ci nawaafil yi nga def ko lu la yàlla man loo rek ci ay rakka nga def ko loolu itam yiwu bare ngi ci waye bu len fatte itam joxe ci yoonu yalla wéru koor dafa nek wér wo nga xamni kenn ku nek dang ci wara parafito parafito xel ba bis bu nek bo bo woré ba ngon donte du yomb nga mëna gis ko dal di jox xaaliss bi wala lu mëna don limbal bi bi xel ba nga génne même lum tuti tuti même bu don juróomi dollar la même bu don fukki dollar la fexeel ba bis bu nek rek nga génne juróomi dollar wala nu mëna tollu nga tek ko fenn ba weer wi jeex nga jël ko yóbbu ko ci néegi yàlla yi nga dimbalee ko ñi nga xam ni ñoo ko soxla loolu yiwu bare bare mi ngi ci kon sëriñ si ahmad tidiane ñu ngi ndokkeel ñëpp dañu doon dañuy ubbi rek bu ëllëgee nag ñu doog a def waxtaan insha allah ñu ngi ndokkeel ñëpp di balu ak ñëpp di masawu coono ñëpp itam ndax heure bii may wax ak yéen mi ngi ñu daan fekk ci sawi seydil haji malik ah yàlla dogal nag li mu dogal ren loolu mënul nekk ndax feebar bi nga xay moo lëmbe adduna bi ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla na ko yàlla jeexal kenn ku nekk yaa ngi naafila ci sa kër ak sa njaboot bu fekkee ni nekk nga ak njaboot bu fekkee yow dong la itam nga naafila rek yow kenn ak ñi nga xam ne ñoom la la yàlla booleel te moo di malaayika yi nga xam ne ñu ngi ànd ak yow kon ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam yal nu yàlla sàmmal boppam yal nu yàlla suturaal ba balaa weeru koor wi jeex nu mën a dellu ci néegi yàlla yépp ubbi ko jeexale weeru koor wi ci néegi yàlla yi lu ko yomb la yal na ko yàlla defal kon ñu ngi ndokkeel adduna bi yépp mboolem fu nekk di dégg kàddu gi ñu ngi lay ndokkeel di la ñaanal yàlla yal na yàlla sàmm ñu sàmm leen yal na yàlla barkeel ñu barkeel leen yal na ñu fekke waa déwén ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee kon lii uh, ubbi rek la woon ñu ngi masawu ñëpp di ndokkeel ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu uh, su ko defee tey ko la ñuy jeexale benn dong laay joxe tey ngeen yóbbaale benn dog rek laa leen di jox ngeen yóbbaale ko na ngeen fexe kenn ku nekk ci guddi gi nga def ko xëywul euh, te mën naa gaaw lu rëy rëy rëy la ci yàlla lëm kenn ku nekk na nga def salaamu salaamu Euh, lim bu mag bi ngay jëkke mujj bi gën a tuuti. limbu mag bi ngay jëkke mujjé bi gëna a tuuti comme weeru koor lañu nek bu ma boolee ñaari mulayil ansam jox leen ko wala ñett man na am du ngeen ma defando yépp damay jëm rek bis bu nek ma jox leen ben ngeen jëfëndiko ko ko weer wi jeex bu soba yalla euh bu fekkee mënuma jot kenn ci kum doon ci yeen dina ko bàyyi ci fi Ahmad Tidiane jeng mom dina taxé ba ngeen def ci yeen ñepp bis bu nekk dina leen baaxe benn ismulaayil asam bo xamni di ngeen ko mëna def ci bis bobu la mhm. tey kon ngeen yóbbaale yaa salaamu six cent quarante waaw lim bu bi ngay jëkkee mujj bi tuuti kenn ku mu doon ci ñun loo ci yéene yal na la ko yàlla defal. loo ci ñaan yal na la ko yàlla defal. amiin lu mu la ci defal yal na ko defal mboolem jullit yëpp ci àdduna ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñaanal ñëpp jàmm. amiin ñi xam ni participé nañu ci COVID 19 bii def ci seen alal. yal na yàlla fay leen yàlla dong tax ngeen des ko yal na yàlla fay leen boppam. amiin euh, ñi nga xam ne ñu ngi fàttaliku jàkka ji saw yi alaaj mali mhm. lu mu xat xat xat ñu ngi koy jéem a dugal seen dërëm fi mu nekk nii yal yàlla fay leen. amiin nañu bàyyi xel saw yi bi xam naa ni fàttewu leen ko seen xel yëpp a ngi kenn ku nekk li ma wóor mooy fi mu nekk nii namm nga saw yi si la yal na nu yàlla suturaal ban delluwaat ci saw yi balaa koor gee jeex. amiin kenn ku nekk ni ma ko waxee saa boo xëyee soo ba ngoon génneel même bu dee cinq dollars la wala ñaari dollars la teg fa à côté ni lii saw yëgee ko moom ba keere weer bi di jeex nga dajale lépp ñëw ni li nga waxoon ñu ngi nii man li ci weer wi mm-hmm. kenn ku nekk na nga fexe ba bu la sa morom <laughs> waaw alquran dafa wax ne saabiquuna saabiquun ulaa'ika al muqarrabuun nee na ñi nga xam dañuy jëkkante ci yiwu yàlla ñooy ñi nga xam ni ñoo gën a jegeñ yàlla kon mën naa ni course laa leen jox course bu mag a mag kenn ku nekk fexe jël première wala bokk deuxième bokk kenn ku nekk bu weer wi jeexee na nga ñëw ni ma imaam li nga waxoon ne bu nekk na ko génne man lii laa dajale loolu maa ngi koy ñaan ñëpp yal na yàlla yombalal leen ko lu ngeen yal na ko yàlla def muy ay néeg yu bare bari ci aljanna ñeel leen amiin lii moo doon xadara bi tey lii moo doon wasifa bi lii moo doon dog yi ñu waroon a ñaan lii doon dénkaana yi ñu leen war na dénk di ko dénk suñu bopp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu يننجسيتا المكتوب